ay ca murit ay ca murit walan góor jàmbaar jëf jël ñàkk tedd ca liggéeyub Sëriñ Bamba bi bismillah fiini addaala yàlla sawi taqaat fiika yàlla yaa man lawol amru yaa man laa sharika lahu nag daa bokk ci borom xam-xam yi ñu jiite kuréel googu nga xam ne ñoo àndoon ak sëñ Saliou di boroomi xam-xam. mu mu bëggoon laa leeral tuuti ci. wala yëkkati bisimilah kon xam naa liggéey liggéey bi comme ni nga ko waxee. Euh, Touba Ca Kanam euh, liggéey mii muy ab yëpp euh, dafa am ay kuréelu ingénieur boo xam ne.

def dimensionnement bi lépp bi ñu ñëwee nag ba signé loolu ba noppi dañoo jël benn ingénieur teg ko fa recruter benn entreprise teg ko fa ba pare nag lépp lu ñuy def dañuy woo mission de contrôle bi nga xam ne si ci njiitalu suñu maam Thierno ñoom ñi nga xam ne ñooy coroner université bi ci bâtiment yi fa nekk yëpp ñu ñëw saytu ko bañ na baax na ñu jàll si geneen wet looloo looloo waral bi ñu bi ñu tàmbalee nga xam ne bâtiment bi mi ngi ci bâtiment wu Madialis si la bokk muy euh, toll ci daanaka ñaari junne mètre carré yoo xam ne si ñeenti niveau la niveau bu ci tuuf ak ñetti étage euh, niveau bu ci nekk am na ñetti salle de classe boo ko boolee lépp ci ci kaw ba ci suuf mu am fukki ak ñaar ci salle de classe te niveau bu nekk am na benn bureau ak ak ay toilettes kii euh, wanag yu fa nekk ak lépp lépp lu muy àndal si saytu gros mooy mooy mooy bâtiment bi nga xam ne ci tàmbali ba ba ba muy yëgg su Touba Ca Kanam lépp loo xamante ni lu lu lu kuréelu université bi tegoon la ne war nañ ko war nañ faa jaar jaar nañ foofu noonu. ay ingénieur di ko di ko saytu ba fii mu yegg ci fii nii waaw. waaw luñ ci bëggoon leeral waaw. waaw li coût bi nag bi bi ñu bi ñu ko réalisé yëpp ba nga xam ne lépp lu ci dem yëpp mu ngi toll si 521 millions. voilà moom la wax 521 millions waaw. waaw waaw saytu bu am bu kii nag daanaka diggante bi euh, bëccëg yu ne jaar na fi waaye daal góorgóorlu nañ daal ba toog feexu sëñ bi doole xanaa mooy équipement bi ni ñu ko war a équipé yi tamit lépp Touba ci kanam du ko du ko jël nga xam ne waaw du ko jël asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulilahi rabbil alamin jërëjëf Seyxna Ahmad al Xadim alhamdulilahi rabbil alamin jërëjëf Seyxna Ahmad al Xadim alhamdulilahi rabbil alamin jërëjëf Seyxna Ahmad al Xadim mu ubbee loolu barkeeloo ko ci njàngale mu am solo mi nga ci jàngale woon di la nuyu ci tur sëriñ Habibu ak ñi mu àndal liggéey bi di magam alxaaji sëñ Takko moom sëñ Fàllu mi ngi nii toog di jàmbaar lool ci liggéey bi yoo xam ne da ciy jëf te ay waxam néew ci lool waaye ku sonn ci liggéey bi Touba Kanam la mbooloo mi àndal ñëpp di nuyu sëñ Amadou Badawi yi mi nga xam ne moom nga tegoon liggéey université bi ci loxoom te ñu ànd koog moom di nuyu sëñ Bachir mi nga xam ne mooy sa jëwriñ ci liggéey bi te moom it jàppale ci bu baax a baax ci yëpp di nuyu suñ maam Thierno ñoom ñi nga xam ne ñoom nga fa tegoon di leen saytoo liggéey bi te ñoom it ñu àndoon ak ñun liggéey bi te yaatal nu ca bu baax a baax ni ko Daawuda Wilaan waxee rek lépp luñ ca mas soxla ko ànd ak ñoom jàppandal nañ ñu ko teg nañ ñu ca yoon wa te yàlla dimbali ñu ci ba nañ lañ tegoon ñoom naw ma yañ tegoon ne moom lañ bëgg ku ko liggéey bâtiment bi Touba ci kanam defee na ko noonu defee nañ ko noonu ñuy sant yàlla bu baax di sant sëñ Touba di la sant bu baax di la sant di la ñaanal di santaat bu baax nag ci tawfeex ji nu am ba ànd ak yow liggéey bi ndax bi nga ñëwee li gën a doon sa itte ci liggéey bi nga tàmbalee ko mooy daara ji nga xam ne Serigne Touba naaraloon na ko boppam yéeneeloon ko boppam bëggaloon ko boppam te jaayante woon ko boromam ba nangul ko ko bin Moustapha lii banal xudduus madrasatan biha yesul asa wal jël wal kabal loolu tegtale ne madrasa mënutoon a ñàkk ci Touba yow lañ ko fi bàyyi loon nag alhamdulilah bi xam ne ba nga ñëw def ko ndax sëriñ moom léppam la mu ko waxee woon waajal na ko ba teg lu génnagut ak génn ma jotagut waaye lu dafa ne waxoon dafa waxoon ne Touba lépp fàggu naa ko ba teg lu ngeen gisagut ak génnam daa jotagut waaye lu génnam jot ma génnee ko dafa mel ne kon lii dafa doon loo xam ne ak génnam day doo ko jot mu jaarale ko ci yow kon ñu ngi ciy sant bi nga xamee ne nuy itam bi nga ko yëkkatee ci njiitul sëriñ Habib ak Touba ci kanam am nañ yitte ak pas-pas ak yéene ànd ko ak yow tax ñu ñëwoon jëloon engagement taxaw taxawal fa bâtiment bii sun borom dimbalu nu ba tay mu ag ba ñëw di ko jébbal sant nañ ci yalla lool sant seigne touba li la ci sant ndax buñ ko mané yawa ndax fu touba ci kanam ag tay yawa kon ñi ngi lay sant bu baax te di la ñaanal di ña suñu borom yalla na fi suñu borom yagal lool dama la waxon bañ koy doga tambali ci ci sa wax yi ni wacc ci àddina ak ñak soxla ci dundu ba nga naan su ma xasse tambali rek li ci dess mom suma demone man la ëpp na def mbacke togal ba lepp ag nga nga ubbi ko ñu tàmbali liggéey bi te nga tàmbali leneen te loolu ba tey moom la ñuy ñaan nag yal na nu ko yàlla defal sëñ Touba sa jëmm ji yal na ci yàlla us taalibe yi yal na ci sëñ Touba sëñal kéemaan bàyyi la fi ndax sagub yoon wi nga sagub lislaam yi ñëpp la ittewoo yal na la fi yàlla bàyyi alhamdulilah bi alamin sant nan bu baax ndax ci sëñ bi dong nga jëm te ci nga nu jëmee ni ma ko daan waxee rek sëñ bi ci waxam daa sëñ bi daa ma sa wax ne yàlla yonente bi de xaasal nañ ma ci seen bopp mm-hmm. waaye fekk waaye yow sëñ Muntaxa it sëñ Tuubaa xaasal na la waaye fekk na la itte foo àgg sa ittee la fa yóbbu wóor na ma ne mag ñaandoon na sëñ bi bu ñu la fekkoon duñ la ëpp la sëñ tey ba xam naa ne sa pas sëñ bi ne woon rasulillahi sallallahu alayhi wasallam bu ko daa tiim sama pas-pas may na ma am ci moom li ma bëgg loolu la sëñ bi waxoon Cheikh Ibrahima Fall waxoon sëñ bi ne ko ka ma doon seet su ma ko gis toon it ñu ne ma fii lañ ko denc la ma bëggoon danaa ko ci am ba àgg fi àgg waaye yow mii itam foofa nga nekk wóor na ma ne fa nga àgg ci sëñ bi lu mag ñi am sëñ bi am nga ko sëñ bi te sa pëstee fa la ko àggale kon nag ñëpp ngi ñaan nga yàgg bi te wér lool te lépp loo yéenee defal sëñ Tuubaa na nga ko def te ànd ko yow sa sa dund gi daal yàlla na doon dund kiimaan goo xam ne ñëpp dañ naan lii mën a nekk ci bàkkib sëriñ Tuubaa sagob yoon wi nga sagob lislaam nga Tuubaa ci kanam ñëpp ñu ngi lay sant te di la gërëm te di la ñaanal liggéey bi sëñ Abibu dana ko yëkkat teg ceeb bi sa loxo ak këy yi nga ñaanal nu ñu ñu diglu ndigal la leen ndigal loolu joxaat ña nga ca bu dee waajtaayu màggal gi it ñu ngi a Cheikh Mamadou Bassir mii nga ko jé dénk woowoon nañu fan yi waxtaanoon ci ndoxum taw mi ci dëkk bi te jaaxal ñëpp ci mbedd yi ba itam Touba Ca Kanam ma nga ci tàmbali na ca ma nga cay def ab liggéey nga ñaanal nu ci bu baax ba ñu àgg ci màggal ga ñu def ñu am ci ndam xëy na dana jafe ndax ginnaaw dañuy ngacc muy taw te yàlla moom coobaram la jël waaye nañ ci nekk alhamdulilah kon nañ ci nekk rek nga ñaanal nu ci baax bu dee ndoxum naan mi ñu ngi ciy sant ndax amoon nañ ñeenti oto yi camion yoo xam ne Touba ci kanam moo ko jënd ngir ndox di joxe ndox ci dëkk bi luyee nañ fukki oto yoo dañ ko luyee suñu bopp ngir di ko yooyu yëpp ñu ngi ci nga ñaanal na ci bu baax a baax ba loolu lépp yàlla defal na ci tawfeex ci màggal gi te nga yàgg fi loolu te ànd yoon noonu tuub ci kàddu yi yi noonu suñu bi waxoon nan ko jottali ci ci ci ak ci turam mbooloo yëpp nga ñaanal mbooloo ñi nga xam ne ñoo yowoon liggéey biit di ko taxaw ñoom itam nga ñaanal leen Cheikh Abdou Sëñ Daam Atta mi moo jiite woon commission bi àndoon ko maam Thierno Ndiaye ñoom ñëpp ñi ngi ci jataay bi ñoo doon taxaw liggéey bi ak ingénieur yi ak waa Touba kanam gépp nga ñaanal leen yàlla defal leen ci taw tawfeex ndimbal ak ngërëmu sëñ Touba jërëjëf Mbàkke maa ngi jéggulu ci kàddu beneen kar laa fi mu nekk nii fer baa ngi waaw informatique waaw kër surveillance yooyu yëpp ñu ngi waaw yëpp waaw ministère yi baa ngi mu nekk daal yëpp yëpp bu ne bu ne lam lañ ciy def moo moo moo moo lañ def foofu yi waaw ñu ngi koy jëbal loolu yu si bopp lépp rek ngir jëm sëñ bi nga xam ne moom ngay liggéey rek ñu ànd ko yow ñu ñaan su loolu àgg ne ko suñu ëpp waaw c'est am waaw moom alhamdulilah rabbil alamin gën a yeesal suñu lépp jaayante jiitu ji sadde suñu lax saay fa seeni liggéey ànd ko yéen jiitu ci tegu ci sax dàkk nag ci liggéey sëriñ bi ci sama waxi taalibe dama daa wax ne liggéey sax dàkk ci jaamu yàlla liggéey la ko sëriñ bi sax dàkk ci liggéey sëriñ bi jaamoo ko yàlla loolu foofu loolu neexut neexut la jënd kon euh, bis ni ki tey maa ngi gën a yeesal sama jaayante euh, di gën a feddali sama laxsaay di gën a feeñal nag sama yéene ji ma xam ne yéen laa ca jiital ak lu ma ci mën ne bëgg rek ba sax ngeen jiitu ma ci ma topp seen gannaaw. Euh, fi tàmbalee mooy liggéey bi Eh, mooy Touba ci kanam gi eh, di di di di di di di pàggu tefu sëriñ Touba jógul fenn pàggu tefu sëriñ eh, am tawféex liggéey loonu ko ndax liggéey bi yëpp ci kanam lépp pàggu tefam la ak tawféexam li ti nga xam ne moo ci su eh, suñu wàll moo di eh, lu bari ci doxinu adduna lu bari ci li weesu ci histoire rek lay mujj waaye nun la nun fii lii liggéey Sëñ Tuubaa bii la cay suñu jom di suñu gor di suñu positif di suñu yitte lépp nañ ko ci dem nañ ko ci def ci suñu dund gii te faggul ci njaboot gi ñëw ëllëg nous taxaw taxawaay boobu Nous bis Nous ci nous bu mu Nous mukk nañ ci nous bis Nous ci ba naan xool sëriñ bi rek buñ ko gisee bu buñ ko defee nii ñu ko waxee bis bi rek lay bii day dox ba bis ba du mujj ci histoire mukk te lu bari ci addu dox na histoire lay mujj kon lii moom la ciy suñ jom di suñ gor di suñ positif di suñ yéene di suñ yitte di suñ taxawaay nan ko nan ko def lépp ci liggéey bi di di dox di dox euh, ba suñu dund jeex ñe ñene wuutu ëpp lu ca ëpp taxawaay liggéey bi dox di dox di dox ba penc bi ci kanam Sëñ Tuubaa loolu mooy moo loolu loolu loolu loolu dañ koy fas dañ ci jugal suñu bopp fasal ko suñu njaboot muy muy muy muy am naa ci yaakaar nag bu baax a baax a baax a baax fa tabaarakallaahu liggéey bi taxaw taxawaay bi mat na sëkk rafet na sell na fa tabaarakallaahu lépp nag dama koy daal delloo si nag ci sëñ Abibu mii du du du du loo xam ne dama koy dama dama koy gërëm ak dama koy dara day dama ko jàng ba xam ko te xam nga ma ko njëlbéen li xamoon naa lépp lu baax la li jot xam lépp lu baax xamoon naa ko waaye nag dama ko jàng ba xam ko. noonu nanu nanu gën a ci taxawaay fii fii toll nañ ci gën a sant yàlla bu baax a baax a baax gën a sant yàlla gën a sant Sëñ Tuubaa ci fàggute bi nga xam ne fàggul nañu ko ak tawfeex jure yi nga xam ne def nañu ko ci Sëñ Abibu mii ndax. taxawaayam bii du tax nit nit kese taxawaayam nit tëgguma ko waaye waaye seet ne ko piste bi mën na sëkk piste bi mën na sëkk yitte ji réy na lool ngor gi mat na jom ji mat na dogu gi mat na itam lépp ndax delloon delloon lépp ci sëñ Tuubaa loolu tëgguma ko dama wax leen dama ko jàng ba xam ko loolu moo tax ne kon liggéey bii xel daal na ci na sama xel daal na ci bu baax a waaye ngeen xamee ko noonu sëriñ sa nan xool sëriñ bi rek nan xool sëriñ bi rek bu xoolee sëriñ bi rek suñu kem kattan di ko jéem a xam di ko jéem a dund suñu kem kattan eh, alhamdulilahi rabbil alamin du ñee kenn fa suñu borom nan góorgóorlu bu baax eh, sëriñ bi mooy mooy yoonu rek amul yeesul mankiwul sëñ bi mooy yoonu yàlla rek sëñ bi mooy yàlla na yàlla rek jox na yàlla jox na yàlla léppam tënul dara lu dul boromam sëñ bi tënul dara ak yonent bi ñu ko tegtal ci biir loolu itam gars yi yàlla yëpp ca malaayka ya ca yonent ya ca gars yu baax ya jox leen seen àq seen diggante di jox leen seen àq ndax bokk gi bokk ak moom se seq gi ñu seq seq ak seen borom jox leen seen àq ba ma sëkk waaw kon sëriñ bi doxin bii da la ma ci yéene mooy eh, nu bokk ci eh, ñi ñoo doxee ci wàmmatug suñu borom ñi doxee wàmmatug suñu borom nga xam ne dara ci seen bopp waaw waaw tàmbale ko ci malayka yi tàmbale ko ci yonent yi tàmbale ci gaa yu baax yi ba ci sunu sëriñ bi bu baax بلا انقطاع بالفضل